te nit ki nag lépp lu muy lijjantee boppam rek lu mooy sàcc wax lu ñaaw muy xeetu saaga nday xeetu def nit ñi di ak yàlla di tere rek noo ko wutee baax na te nag mosoo ko dégg mu wax lu ñaaw mosoo ko dégg mu frustré nit mosoo ko dégg mu weer nit lépp lu muy def rek ci comédie la koy def ak liñ naan xeetu dof-dof lu ba lijjën sa bopp. nekk ci réew moo xam ni boo dof-dof lu kafoo reewoo foo ubbeekoo kenn du la faale. boo tëjoo rek. kenn du la lijjanti. dëgg la dëkk boobu mooy doxee noonu. dëgg la waroo sérieux boo nekkee ci réewu Sénégal waroo sérieux da nga war a ubbeeku. dëgg boo sérieux rek ñu ne daa yëg boppam wala dafa soof wala dafa reew loolu moo tax li Pawlish di def nii lu ne mën na ko ci am xale la yëg ma nag Pawlish du def lu ma yëgoo da gis ni chaque jour yenn saa yi mu génn sax naan bu seen nangam ci guddi gi daf may woo téléphone bu waree wax suba tey ci guddi gi nii daf may woo téléphone wax amul waaw yaa ngi dégg yëg ma bëgg ma bu ma yëgalee bisam damay bàyyi lépp ñëw ndax man nag ni may gis nii du ma dem fu ma woo mukk saako moo tax lafe ma fenn waaw yëg na ma respecté na ma am na fu ma teg te te bëgg na ma tamit police day jékki-jékki naan ma man kenn rek a may retaan loo kenn rek laa bëgg muy yow da wax fépp mm-hmm. te loolu nag mbégte la ci man te ci man moo tax su damay bàyyi lépp ñëw en tant que mag en tant parce que dama koy conseiller ci lu bari dañuy ànd lu bari te ndax ñun sutura rek la ñuy sama relation moom passé na ma gis marché bu mu am doole woo ko téléphone ne ko kaa ñu dem mu lekk ci li mu ci lekk ma lekk ci li ma ci lekk moom yenn saa yi mu doole woo ma ne yow la ñu soxla mu lekk ci li ma ci lekk mu lekk ci li mu ci lekk. parce que loolu la ñuy dund te doo ko dégg fenn doo ko gis fenn te bu waree wax ci man day wax ci man loo xam ni ci respect la koy teg ak ay valeur loo xam ni tey damay gis sa di ko reetaan fekk nit ñi dañ koy jàppee classe waaye man dama koy jàppee mbégte parce que ay reetaan la may def ndax xamante nañ man ak moom sama rakk la kon doomam yi yàlla na leen yàlla def mag mu tuddee nag Seydina Muhammad mu mu mu ak Bijou Ngoné moo indiwaat kóllëre ndax tamit Bijou gis nañ taxaw bi ko taxaw ak bëgg bi mu ko bëgg bu ko tuddee doom war na Seydina Mouhamad képp man dama naan képp ku am sa taaw bu góor kooku rek nga ko war a jox waroo koo jox kenn ci àdduna man mii tuddee naa Seydina Mouhamad doom kon dañuy ñaan képp ku ko bëggit yàlla defal la ko barki Seydina Mouhamad Pawlish doomi màgg ba di ko teral mhm. barki Cheikhul Khadim Pawlish ku ñimee ku ñime kii la ku ñimee ku ñime kër la ba pare dama ko ndax dama ko xam Pawlish moom xaw ma ku ma xamul waaye du Pawlish mi kon ma koy ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan ah, kuy romb noonu biisu yaay romb waaw waaye sama nit la kii moom xam na ku ne xam na ni sama lépp la kii ñoom ñaar ñëpp sama lépp la moom ñoom ñaar ñi ko ndawtal ci ay géwal kenn du ma ndawtal ci géwal waaw kenn du ma ndawtal ñoom ñi ko ndawtal ci ay géwal xew bi ñu seen xew la seex bés bi nga la am ci at mooy sama lépp sama àdduna tey su ma deewoon sax sama àdduna la mooy sama lépp man di leen wax ne mi ngi wax lum ragal idée non bu dul loolu sax nit bu la suñu borom bi defee nga xew la c'est am di jàmm ndax ku la iñaanee ñëwul sa bis xamal nit ku baax la nit ku am xol la c'est que des fois di nga dugg benn dëkk boo xamante waxee nit ñi duñ dégg sens bi nga waxee mm-hmm. te nit ñi dañoo war a toll foofu dañoo toll ci Sénégal boo dafa bëri ay yàq sax ñoom ay defar mais di leen xamal ni fii fi teew rek gars kon kontaan nañ ci ndax muy Cheikh Mbacke di man fu mu toll nii ñoo war a dalal ganu police yi di leen gunge di leen gàttandu di leen dugal di leen génne ndax nit moom ni mu toll ci yow rek ngay ci moom li Cheikh wax dëgg la naaj bi daa tàng gisoo man Patala maa te dañoo taxaw ci naaj di ko jéem a risqué mais presse la presse aussi kenn amul ci yéen seen wàll yal na leen yàlla seexam yi yàlla nañu màgg ba fay ko ko maag yaayam ñoo bokk ndey ak baay de waaye lu mu defal yaayam benn defal nañu ko ko bintu jeng mii moo ko yar te ba mu nekkee xale ba tey te dara ñaaw ñoo ngi koy ñaanal jàmm nag ak salaam di gërëm nag aja maam jaara maam jaara bi mu duggee ci police ba tey dara ñaaw maam jaara nangu naa sëy jigéen ju mën a muñ la ndax Pawlish képp kuy nekk ak moom rek il faut nga mën a muñ bëgg fameem nag maam jaara dafa ñëw xam ni Pawlish mii daa bëgg fameem mu ñëw bëgg famille Pawlish maam jaara ñu nag moom suukaru koor ñu nag moom lépp lu xew rek maam jaara indi na ay teraangaam respecté ñu nag bëgguñu jàppale ñu ñëw nag fekk fa jabaru rakkam muy Binta Gueye mu topp nag ci ginnaaw Binta Gueye du def dara te woowul Binta Gueye muy jabaru Fallou Mbaye looloo ma gën a neex ci Mame Diarra respecté Binta bëgg Binta Gueye fonk jàppale Binta ndax nag sama goro bee bala maa gërëm kenn gërëm ko day togg ci mën a ci yàq ci muy chéri Fallou Mbaye Pawlish Mbaye nag bëgg ko lool lépp lu mu jëndal Mame Diarra jëndal na ko Binta Gueye lépp lu mu jëndal jaana jëndal na ko Binta Gueye jàppal la ñu nag Pawlish Mbaye ñu nag moom korite ñu nag moom koor ñu nag moom tabaski ñu nag moom tamxarit ñu nag moom màggal ñu nag moom 24 ñu nag moom 31 defeewul dara ci àll bi lu mu def kër maamam ji la ko def di kër Bintu Gueye defeewul dara ci àll bi lekkul dara bàyyi bi Pawlish mbay dañ koy ñaanal seexam yi yal na màgg ba dimbali ko dimbali yaayam ji di maam jaara macha allah deful dara lu ñaaw lépp luñ koy waxal ci lu bon nag du moom lépp luñ koy waxal ci lu bon du Pawlish barke Serigne Bab ñii ñii mbay bi fan la jógee au lieu de ki koy yar mbay la sant Pawlish Mbaye mii ki koy yar mbay la sant waaw

bi bi muy sëyeeg bi yaayam bi sëyeeg Lat Mbay boobu ñetti weer la am boobu ñetti weer la am mu màgg nag màggee ci loxoy Lat Mbay moo tax ñu naan Pawlish Mbay Pawlish Mbay Lat Mbay bu daan tëggali cool sekk da daan jël Pawlish Mbay uuf ko da daan jël Pawlish Mbay uuf ko yóbbaale ko ci soirée ba moo tax bi mu màggee mu xam Lat Mbay looloo indi Pawlish Mbay amoon temps yu temps yu jamono am polémique lool bañ naan Pawlish Mbaye la sant papam génn def sorti ginnaaw moom dafay jabar nan nga ko dundee woon lu ma ko dundee woon sant yàlla lu ma ko dundee woon sant yàlla ndax damaa xam ne sama doom am na lu mu doon demee papaam du génn mais bu mu génnee lii xew la dañuy ngénte mais lépp jàmm la. Mambo ñu lay nuyu yow yaa yar Pawlish Pawlish bu toogee ci télé bi sa tur lu bëri yow la koy tudd tey jii sam bi di ngénte yan kàddu nga njëkk a yëkkati. xanaa di ko ñaanal di ko sant. waaye di ko ñaanal sant. Pawlish Mbaye ba muy xale bu ndaw ba tey ci jom rek laa ko xam ak yar ak i teggin mësta xuloo mësta xeex mësuma la jël yor ma nag fonk ma yor ndeyam yi yor ay rakam yooyu ma dara ndax Pawlish Mbaye ren jii daaw la ma naroon a yóbbu màkk ren jii samay kayit a tax waaye kon baa def pare paa dem màkk deseelu ma dara Pawlish Mbaye deseelu ma dara di ko ñaanal njabootam gii mu am yàlla na ko yor